commune Médina di gox ci xolu Ndakaaru Njaay dund na ambiance biig mu dëppoo ak 31 octobre balaa ñuy dugg ci taxaw seetlu bi tey ñu ngi rendre hommage sunu mbokk communauté catholique yi nga xamante ni nii tey jii di 1 novembre dëppoo ak Toussaint dañuy célébrer ñi ñuy tuddee saint yi nga xamante ni ñoom dañuy faral di dem ci armée yi ngir rendre leen hommage kon ñu ngi leen di jaajëfal te di sàkku ñaan te di xam ne Sénégal waxtu wu ne rek nii lay tëddee ku ci nekk ak sa xew waaye ñun ñëpp ñu ànd ko bokk ko ndax réew mi benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal nag mi ngi dellu siwaat ak ci taxaw seetloom topp kaa gi tey lan la diggante Sidi Diop la ak El ndax ku ne xam na ni 31 euh, octobre bi Sidi ca wàll ma nga amaloon biir si Ndakaarom waaye El Hadj Keita de son côté moom itamit amaloon concert gu am solo foofu noonu biir médina mu nekkoon choc maanaam de génération ci ñaari jeunes yoo xamante ne kenn ku ci nekk yaa ngi bay sa waar ci sa wàll waaye nag euh, taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci. Euh, coloration politique bi nga xamante ne nii gis nañ ko événement bi am ko ndax ku ne xam na ni Medina Bamba Fall moom mooy maire bi waaye ku ne xam na ni tamit am na benn concurrent bu fekkee mën nañ ko woowee noonu mu di Cheikh Ba ñu koy wax Messi moom i tamit moom leen fa samp Medina ngir mu euh, fas yéenee doon maire ca maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar gi waaye Cheikh Ba dafa dem ci langu El Hadj mu mel ni Messi dafa fekk Messi Bamba Fall mii maire moom dafa dem ci langu. Sidi Diop ku ci nekk nga tey fa discours ak la nga fa wax ci sa wàll bon mu di nduru ni ay réglement de compte la donc ñu fàttali ne réussite am na ci ñaari boor yépp sauf que mooy ni ma ko waxee le coloration politique bi moom lañ ci euh, xaw a def taxaw seetlu ci mbiru ay réglement de compte Bamba Fall actuel maire comme ni ma ko leeralee léegi ak fële na la ca wàll muy euh, Cheikh Ba léegi nag ñu leen di wax ni ndax euh, laaj bi daal mooy jotul artistes yi. artistes yi maanaam euh, yeewu xamaat seen bopp bañ a doon ay nit ñoo xamante ne dañ leen di utiliser ci ay combat politique ay nit ñoom dañ leen di utiliser ci ay enjeu politique ndax ak lu mën a doon ku ci nekk sa wërsëg ngay mën a lekk ci mbir mi donte ñoom ñaar daje bi ci même heure presque ci même bés ci même gox ku ci nekk di amal sa bés Euh, doyoon na waar waaye nag ndax jaroon na coloration politique di ci am ci ñaari fànn yi mu di ci wàllu wii nga xamante ni moom mooy Bamba Fall moom mooy actuel maire bi waaye ci wàllu wala moom muy Messi di euh, Cheikh Ba defe naa loolu moo nekkoon euh, taxaw seetlu bi ci ñu leen di laaj ndax artistes yi tamit jotul tey jii nii tamit ñu bañ a doon ñu ñuy utiliser ci ay combat politique ñu ñuy utiliser ci ay enjeu politique bu weesoo loolu nag ñu fàttali ne maxu Subatel nga xamante ni moom mooy manager nga xamante ni moom mooy label Subatel production mi Sidi Diop nee nañ may na Sidi Diop 4-4 goo xamante ne valeur u 57 million la ñu leen koy fàtte